jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ànd ak seen télévision bii di Mbour TV ñoo ni di gërëm seen ànd wi ak ñun ginnaaw bi ñu leen nuyoo daleen ak jàmm ci xibaar yi. li ci gën a fës dañ koy door ak wàllu dem bi ak dikk bi ab garage dañu doxal foofu ca croisement Saly loolu nag préfet bi ak ñi yëngu ci wàllu tourisme neen du yàgg dara rek jëlee fi boobule garage leneen ci xibaar bokk na ci wàllu politique ndaw yi nga xam ne ni ñoom ñoo bokk ci majorité présidentielle nekk fi ci département Mbour ñoom nag fësal nañ seen ñu leen beddi ci li nga xam ne moom mooy wàllu financement yi leen ci xibaar mooy wàllu njàng mi ak njàngal mi mairie bu moom mooy Bakary Sadji moom nag dugal leneen ci xibaar bokk na ci ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn hectares yi nga xam ne jébbal nañ ko société bi nga xam ne mooy ciment du Sahel foofa ca parc bu foofa ca forêt classique bu Bandia loolu nag askan wa nee nañ duñ ko wanaasu benn yoon lii ab tënk la ba leen taaxeeloo ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi. liñ leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi li nga xam ne ni moom mooy ab garage la ñuy taxawal foofa ca croisement Saly. loolu nag ki nga xam ne moom mooy préfet bi rek bokkoon ci li muy ñaawlu moom mooy wàllu ñàkk kaarange gi muy jugal ci askan wa ndax kat oto yi nga xam ne ñoo fay jubee kenn enregistré wu leen fenn leneen li métti tamit googulee préfet moom muy gis ne benn garage la ñu reconnaître ci wàllu yoon fii nga xam ne moom mooy ci diwaanu mbur moom mooy garage bi nekk ci wetu jumaa ji loolu nag moom mu gis ne boobu boobule garage kat du yàgg dara dinañ ci liggéey ba daal di ko fi jëlee ndax kat bërëb fa bëgg a def leneen dañuy teewlu ki xam ne moom mooy reportage bu Mamadou Diop garage bi nga xam ne taxawal nañ ko ci croisement Saly nekk na nag bërëb boo xam ne lu jëm ci wàllu kaaraange ak salte bu bëree bëri bu ñu fa nemmeeku loolu moo ko gën a indi mu nekk nag mbir moo xam ne kii di Saer Ndao naqarlu na ko bu baax a baax. waa bunt bi dañu gis ne fii mooy buntu station balnéaire bu sali waaye li ñu remarqué ku dëkk Mbour xam ko ku dëkk Saly xam ko ku dëkk ci département bi xam ko waaye ku fi romb bis bu ni tukki xam ko mooy fii dafa am gare routière bu ñu fi teg te teguwul ci yoon. mooy maanaam ay oto dañ fii yeb di dem Dakar ay oto dañ fi yeb di dem Thiès te tegul ci yoon gaaru routière bi ñu reconnaître te état reconnaître ko te mu am kayit mooy bi nekk fii biir Mbour donte oto yi xaw naa doy waar mais mooy gare routière bi ñu reconnaître ku bëgg a def transport foofu nga war a dem. càcc yi ñu fa nemmeeku waaye tamit viol yi ak yenn agression yi nga xam ne gis nañu ko fa tax na ba kii di Saer Ndao kat jël dogal ne dafay jële boobu la gare transport bi am fii ci point yi ñun ñëpp ñu toog di ko seetaan te naan arrangé na nit ñi mooy musiba ëllëg te xamuñu nuñ koy bu ñu ko seetaanee mun na jur loo xam ne kenn xamul fuñ koy réglé oto yi fii yëpp fii day bëri oto ñi nga xam ne ñoo koy dawal xamuñu ñan la parce que enregistré wuñu leen fenn xamuñu leen ñu ngi organisé pour def une opération boo xam ne opération bi bu ñu ko defee place bi ci boppam dañ koy jël nag léegi def ko suñu moomeel am leneen lu ñu fa def Saer ndaw du wet ci boobule combat ndaxte kat ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite tourisme ñëw nañu ngir jàppale ko ci boobule combat. wàllu kaaraange gi aussitôt aussi ñu ngi préfet mu ngi ñuy jàppale ak waa service régional du tourisme ak délégation Petite Côte ñu jéem a xool lan la ñu mën a def vraiment pour touristes yi war a mën a dellu si ñu soxali tourisme bi ndax looloo ñu fi teg te ci loolu rek la ñuy dox. heureusement Saly ku fi romboon démb romb ko tey xam ne am na changement bu mag. te loolu ñu commencé nag loolu lañuy ñuy continuer incha allah ba li fi nekk nii dëñ fi ndaxte xam nañ ne fii moom mooy euh, seetu bi. préfet bu mbuur moo doon présider bés bi nga xam ne moom lañ doon màggal tourisme fii ci biir Sénégal mu nekk nag bës boo xam ne waxtaan nañ ci ci nan la ñuy def ba ndaw yi mën a am liggéey waaye tamit ñàkkum kaaraange gu bari gi nga xam ne nemmeeku nañ ko fa ak salte bu bari bi am ci biir station balnéaire bu Saly Portudal nan la ñuy mën a def ngir mën ko faa jëlee. lenen ci xibaar walu politique ndaw yi nga xamni ni ñom ñoo bokku ci majorité présidentielle ñom nag fësal nañ ci ñugu-ñugu xol ginnaaw rek buñu gisé na dañ leen bédd ci li nga xamni ni mom moy walu financement yi nga xamni ñi di état mu ngi koy sédélé ñom nak ñu joxuñ baaraamu tuuma jëwrin gi nga xamni ni mom lañ walu mom lañ denk walu ndaw ñi mom nak mu gis ne ba tamit lenen mom moy rek autorité yi nga xamni ni ñom lañ andon ci élection yi kat dañu rek jëfëndiko ba paré dem Dakar tedd fa fay sen téléphone dañuy tewlu ki nga xamni ni mom wax ci sen cadeau di Euh, Khadiba Gueye moom nag moo wax ci micro moom Mamadou Thioban. li waral ndaje mi tey dañoo am suñu naqar ak suñu tiis amuñu fenn fuñ ko jooyee ndax bu ñu mënoon a jot ci président de la république son excellence Macky Sall dinañ ko wax naqar gi nga xam ne moom lañ nekkee ci département de Mbour bi rawatina commune de Mbour mais président comme pour nga gis ko dangay am foo jaar kon yaakaar naa ne amuñu fenn fuñ ko jooyee ci seen média yi rek lañ ko mën a jooyee pour son excellence mën a dégg suñu naqar gi nga xam ne ñu ngi koy dund suñu xol depuis que mun mu nommé suñu responsable nekk ci département de Mbour yëpp rawatina nag su ma nee responsable am na responsable yoo xamante ni mun nañoo jàppale jeunesse bi ñu liggéey am na responsable yoo xam ne tey mun nañoo financer jeunesse bi ñu liggéey am na ñoo xam ne seen doole eggul foofu waaye ñi nga xamante ni tey seen doole egg na pour ñu jàppale ndaw yi pour ñu liggéey pour ñu wutal leen fu ñu leen dugal pour ñu liggéey rawatina nag madame Sibi man madame Sibi mun naa ne télé laa koy gis wala may dégg turam depuis que nous nommé comme ministre bataille, nous sommes ko gis commune de Mbour mu base parce que dans ma ni son excellence bu l'avez nommé daf a jox nous pour ñu dem dimbali ndaw à mu jox mais son excellence namewu pour nous au niveau national bu dara xewee ñu ñëw wàcc 000, nous 100000 000, nous 50000 dem seen yoon taxul président de la république nommé Quand kon interpeller madame Sibi nous nous ñun waa commune de nomination bi la son excellence Macky Sall jox gisuñu ci sunu bop te jigen la ñun ñi jigen ñu waron ci gis bop waxuma la sax pour wutal ndaw yu liggéey mais financement yi son excellence di joxe mun naa ne commune de Mbour rawati na ñun jeunesse bi les jeunes filles yu bok ci majorité présidentielle gisuñu sunu bop ci financement yi son excellence di joxe kon dama né Mamadou Dione Kosek mom tamit ñu koy interpeller di leen wax né li ñu leen di laaj lu ñu moom la ñun ñoko mom parce que soo déggee ma ne ñun ñoo ko moom ba muy metti ñun ñoo nekkoon sur le terrain doon liggéey ñun ñi nga xam ne nag rawatina ay jigéen lañu dañoo bàyyi seeni borom kër ñëw di campagne di ànd ak ñoom di dugg fu nekk am na ñoo xam ne tey seen sëy yëngu na ci campagne élection présidentielle yi ñu nekk am na ñoo xamante ni dañuy campagne ba ngoon jot ñu ñibbi seen kër lu ñu jëndee reer sa duñ ko am parce que bu ñu eggee ñu ne leen reer ba jeex na rawatina ñun waa commune de Mbour ndaw yi non dama ne commune bi lu ñu daj ñun commune bi lu ñu daj parce que man li may wax dama koy wax ndax dama koo dund te su ma waxee tey jii waa Mbour xam nañ ni war naa wax parce que waxtu bu nekk ànd nañ ko di campagne kon dama ne maa ngi interpellé Omar Youm madame Sibi Mamadou Dione COSEC dama ne lii ñuy wax ak responsable yi nekk commune de Mbour yëpp ak ñu nekk département yëpp ak DG yi nekk commune de Mbour yëpp bàyyiwuma kenn dama ne li leen seen son excellence jox nañu ci jox suñu wàll nañu ubbi seen téléphone yi suñ leen di woo nañ ñu jël mais depuis que son excellence gagné dootoo ci woo kenn ba jot ko non seulement waxuma sa loolu waaye organiser too dara ba woo leen ñu ñëw korok ba élection jeexee la ñu fay seen téléphone yi ñoom ñëpp dem tëdd ndakaaru responsable yi may wax nag mooy yi nekk commune de Mbour nañu tëjji seen téléphone yi wax ak jeunesse bi parce que jeunesse bi ñoo leen dooleel ñoo leen jàppale ba tey bu ñu nee wi son excellence ñun am nañ ci part de responsabilité ñi nga xam ne ñoom la takkal ndomba tànk ñu nekk ci département de Mbour bi ñu jeunesse bi nekk ci département de Mbour bi ñi ñu fal seen jabar seeni rakki jabar seeni famille ak seeni dëkkandoo ñoom rek la ñuy jël di leen fal dilan leen jox ndomboy tank léegi nak désormais Omar Youm mang lay interpeller madame Sibi mang interpellé, lay interpeller maa ngi interpeller Serigne Diop Sandiara yaangi deg dégg kenn interpellé président salou Samb maa interpellé Cheikh Issa Sall m'a interpellé Sira Ndiaye Sira député la bo xamanteni combien commune de Mbour la deuk

parce que président Macky Sall son excellence jaral nañu ko. wax ci li nga xamni ni tamit mom mo ñeel walu njang mi ak eh, njangal mi ki nga xamni ni mom moy mairie bu Somone di bakari Sadji mom nak duggal na loxom ci walu njang mi ak njangal mi ginnaaw rek bu mu jébbalee ñi nga xamni ñom ñoy école gox ba lepp lu ñeel rek walu fourniture scolaire ba tay tamit mu ne jël na en charge bép élève bi nga xamni ni nii ya nga ngi yëngatu foofa ci sa frais scolarité mom nak dañuy tewlu ki nga xamni ni mom moy bakari Sadji ci micro Moussa Niang njaay moy euh, def lo xam li rek euh, chaque année mom lañuy def té daf ñu war euh, obligation la pour ñun parce que njang mi compétence la bu nga xamante état daf ko transférer collectivité territoriale ñu war leen jàppale war leen a gunge ñu def né chaque année nak bu école bi tijjee dañuy jël fourniture yi jox ko xalé yi pour leur permettre aussi effectivement euh, frais d'inscription yi 2000 francs par élève euh, depuis daw euh, dañ en charge en charge pour tous les élèves au niveau de la commune ak aussi pour tous les élèves au niveau de la commune ordre d'enseignement euh, préscolaire mais avec euh, éducation élémentaire. On avons une école élémentaire euh, ak une école case des tout-petits une école maternelle communautaire. nettoyer nañu école yi pomper donc pour que véritablement tout le personnel mais aussi les élèves puissent dans un environnement bo environnement salubre pour que nous puissions faire leneen ci xibaar lu toll ci téeméer ak lu toll ci ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ay hectares la ñu jébbal société bi nga xam ne ni moom mooy société ciment du Sahel foofa ca biir par forêt classique bu Bandia loolu nag askan wa nee nañ kat mënuñu wanaas loolu ndax kat dañ ko gisee ab jaay doole ba tax rek ñu ràngoo woon ay morso yu xonq doon fësal rek seen ñugu ñugu xol ginnaw rek bu ñu gisee ne da leen jaay doole nangu seeni i moomeel dañuy teewlu ba tey reportage Mamadou Diop. ñaari téeméer ak fanweer ak juróom benn hectare yi nga xam ne jox nañ ko waa ciment du Sahel ci biir forêt classée bu Bandia loolu tax na kat ba askan wi fa nekk mer nañ ba futtu ay fulaar yu xonk lañu rango ràngoo woor ngir wone naqar gi nga xam ne moom la ñu àndal. forêt forêt classée la du àll boobu te àll àll kii yooyu la forêt classée la bu ñu classé depuis 1930 te li ñu gën a metti si mbir mi dañu génne benn décret ñu ne président Macky Sall moo ko signé mom mo len jox 236 hectares ci suñu forêt bi man ni koy waxee sa su bu fekkee ni président Macky Sall jox na leen 200 jox décrété na 236 euh, hectares ci suñu àll forêt classée bu bi kon injustice a ngi am. ñom ñu né dina xeex ba luñ ci copé carco ndax té kat ñom japp nañu né carrière yu bari yi nga xamné mo ngi ci seen biir gox boobu kat amul ben yok yok bo xamné indi nako ci seen dundin. tuberculose fi mu toll nii. dafa wulé ñaay fi parce que poussière fu mu nekk feebar am fa. carrière yi bu ngelaw joge ngelaw lepp ci bir dekk bi la jëm béykat yi mënatuñu am mango parce que mango tor tor ak euh, poussière àndut ñax mi mënu nag yi mënatuñ ko lek fa poussière bu tagé ci ñax nak du ko lek mais kon ñun ba doole fu ñu jëm li nekk suñu ginaaw école la dé 1959 lañ ko fi def fi ay milliards di fi génnee mënuñu am école bu méngoog jamono motax ñun tay audience publique bi bu fekkee ni état mu ngi ñuy dégg ak ku ñu mënta dégg na nga xam wa waa dañu bañ catégoriquement bëgguñu ko tay bëgguñu ko suba bëgguñu ko gannaaw suba. wa ciment du Sahel ñom li ñu xamle moo di ne carrière yoyu kër suñu ko exploité dina tax ba marché local bi am ciment bu doy. mosuñu see mos a tek suñu tànk te ñu autorisation eaux forêt dem nañ be signé ak ministre de l'environnement protocole d'accord lool yépp pour mëna nekk alors si légalité. carrière fu carrière calcaire amul manam fu calcaire amul ciment manu fa am yaa ngi dégg te comme ciment bi léegi dafay andi ay jafe-jafe suñu kilifa yi ne ñoom dañuy defar une troisième ligne ngir ciment bi gën a jàppandi mais xam nga nag ku dolli cere dolli ñeex. ngir nag fexe ba askan wi nangu bi le projet amoon na nag benn audience publique boo xam ne amaloon nañ ko ci biir dëkk bi waaye nag askan wi yëpp du ñu àndandoo ne bëgguñu benn yoon le projet. mbokk yi safoon di ànd ak ñun ñoo leen di gërëm di leen sant di leen ñaan jàmm di sàkk tamit fu ngeen toll ngeen ñaan jàmm ñoo jox daje ëllëg ci suñu beneen jataay xibaar jërë ngeen jëf